cinq cent soixante deux. votant yi toll woon ci trois cent cinquante neuf foofu nag Benno am na ci cent soixante sept wàllu Sénégal six la fi am Defar sa Gox douze coalition Sénégal deux mille trente cinq am fi six. Yewwi Askan Wi am fi cent trente deux coalition patriotique pour la justice équité na leer cinq la fi am Dekkal Yoff seize la fi am. Euh, gëm sa bopp am fidèle donc euh, ci fàttali rek Benno ak coalition Yewwi Askan Wi daal ñoo fi jiitu euh, Soxna Saara. jërëjëf Ibou Diouf ñu teewal foofu Coyof donc mu nekk ay résultat provisoires yu ñu am foofee ci bureau de vote bi waaw Ablaye ñu daal di wéy si li nga xamante ne. alors moom la xam naa ni suñu gars yi ñooy bousculé wu ci téléphone bi.